rek des ñu daal di dëgmal tabaski sénégalais yi ñu ci wàccaay si ñeen borom kër yi di concentré wu ngir wutum xar mu ñu mën a lewatal ci bésu feet bi le ñenn ñi ñoom ña nga ci wër ci marché yi ngir mën a satisfaire seeni soxna ak seenu njaboot ci jouru tabaski bi le ci marché Ndoumbé Diop bu njaareem foofee nag ambiance ba mu ngi au rendez-vous waaye bu ñu sukkandikoo ci yenn jaaykat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ba léegi nii li ñu yéex a jënd loole nag moom xalaatu jaaykatu prêt-à-porter bile. tabaski bi moom jegeen presque mais daanaka boo xoolee marché bi nit ñu ñëw di dem waaye daanaka taxagul jënd bi demee noonu ñun moom Jurbel d'habitude jëndkat yi moom dañuy bàyyi ba dernier moment rek ñu doog a jóg ren aussi contexte bi ñu fekk tamit mel na ni tamit dana xaw a wute ak nam daan demee jaaykat bi itam di jaay dàll moom itam lu nu mel lay xamle waaw instant bi de moom daal instant bi doxagul quoi parce que événement Jurbel moom dernier moment la gars yi mais ñu ngi koy waajal ñu koy pare bagage yaa ngi commencé wàcc instant bii nii moom dëgg yàlla ñu ngi wàcc bagage euh, ay jama yu rafet sax mais instant bi moom gisaguñ client quoi. wetu daal yi ak jaaykatu yu prêt-à-porter yi nemmeeku nañu itam ay tatoueur ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi ci wàccaay bu baax a baax te ci di xaarandi client yi. tatouage moom dafay li nga xamante ne moo xew ci jamono moment bi ñu ne parce xale yi bu événement jotee ku da ngay mel ni defoo dara bon préparation nañu ci préparation tabaski Diourbel moom pour ñu pour événement bi teel a déroulé il faut ñu dem ba sëg ci ci jouru tabaski muy soog a déroulé yenn déroulé yi mais nag pour le moment ñu ngi fortaatu benn par benn macha allah. malgré situation bi yëpp ñoom commerçant yeeg tatoueur yi ñoom am nañu yaakaar bu baax a baax gis ñii di clients yi laata.